salaamaaleykum monsieur le ministre des finances et du budget nous sommes lay nuyu bu baax le ministre du travail nous sommes aussi madame le ministre de la santé et de l'action sociale euh, di sommes sama euh, collègue député yépp di rafetlu jotaay bi Ce euh, technicien yi aussi nous, ngi leen di nuyu di ci génne ko xamante ni ñoo bokk dëkk fële ci Pire mu yor action sociale di Mouhamadou Moustapha Fall di doomu dëkk ba di jambar lool ci liggéey bi donc diko encourager aussi di la féliciter madame le ministre ah gis naa réponse bi nga xamante ni moom nga ma envoyé vraiment muy réponse bo xamante ni dal na xel suñu yaakaar dëgër na ci ah di japp ni nak waa Pire gépp ñu ngi taxaw di la déglu di xaar ndax réalisation centre de santé boobu ndax dëkk bu mel na Pire dey am sept professeurs d'université yombul ci ab commune am plus de vingt médecins ak plus de vingt étudiants en médecine loolu yombul ci ab commune donc santé war naa delloo njukkal waa Pire loolu nag dama koy wax madame le ministre bu baax moom mu bàyyi ko xel di wax ni plaidoyer bi nga xamanteni ni aussi ce professeur le professeur Seigne Abdouba Ba nako wax ndan na ci ak yow en commission donc ñu ngi xaar deug deug réalisation yoyu ndax am nañu espace bo xamanteni ni trois hectares la def nañ fa euh, réalisation bo xamanteni ni waa Pire ñoo cotiser muy 85 millions yo xamanteni ni tabax nañ fa maternité tabax fa logement aux sage-femme il espace ba fa des mom bari na ba centre de santé donc nous ngi lay sante bu baax la ci féliciter bu baax département de Tivaouane day day euh, day département bo xamanteni dafa bari tawat am am commune la commune de Koul commune de Koul fukki at ak ñaar a ngi nii ñuy topp ci ginnaaw euh, benn poste santé boo xamante ni tabax nañ ko fa am na fa benn étatique boo xamante ni war na faa mën a ñëw di fa liggéey état di leen ko jëlal en charge ndax ñoom ñooy fay ka nga xamante nii moo fay liggéey loolu moo dal waa jogo nga xamante ni ñoom it du woo tabaxal na leen poste de santé waaye équipé nañu ko amuñu nag benn étatique buñ fa affecté boo xamante ni mën naa liggéey foofa. di la wax ni la Ngembe mi ngi bokk ci benn commune bu ñuy wax Ngañ Juuf moom ak juróom ñetti village yoo xamante ni dajaloo nañu tabax fa benn R plus 2 boo xam ni équipé nañu ko lu lépp am na fa waaye nag ñoom ñooy faj ñooy fay ñi nga xamante ni ñoom lañ fay employé kon war nañ leen a jàppale aussi ñu am ay étatique di la wax ne la Pambal ab commune la aussi bu ne ci département de Tivaouane Pambal bu la consulter ba bindal la garab tiwaawan nga koy jënd ji te tiwaawan ak pambal 9 km la da ngay dox pour jëndi garab yooyu donc di la wax ni la madame le ministre euh, fee ca nooto guy jama nga ni moom it ci département de tiwaawan la ah maa ngi lay wax ni day centre de euh, poste de santé bi fa nekk lul amul ay amul ay fajukaay amul dara presque mën naa la ni ña nga fa dëkk te di fa war a alfa dem ndax fa la sëñ ba dëkk mais ñoom ñoo defar seen lépp di fajal di fayal seen bopp personnel bi nga xamante ni ñoo fa nekk madame la ministre ah di la wax aussi nii wax dëgg yàlla problème département de problème bu bu doy waar la parce que asma Febru Jare, Febru feebar yooyu yëpp day ay feebar yoo xamante ni pollution bi moo koy jox askan wi kon yaakaar naa ne lépp luñ fa def ci affaire santé man yaakaar naa ne doyul kon ñu ngi lay gën a tàllal loxo à ce nga gën a jàppale le département de Tivaouane ba jafe-jafe yooyu nga xamante ni am nañ ko ci wàllu santé lu ci baree baree bare ñu mën ko woon ginnaaw maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di wax ni piir dëkk la boo xamante ni aussi amul mutuelle de santé te man yaakaar naa ne commune yëpp ba mu des commune Pire moom rek moom moo amul mutuelle de santé kon di la ci bàyyiloo loo xel bu baax jërëjëf